mbokki internet yi safoo setaan AGT news daleen ak jaamu suñu jàngat na leen suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar ak i jàngat yu wér te ngir Sénégal développé faw ñu dakkal yenn relation yi nga xam ne dañ koo am ak réewum France loole mooy philosophie bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko di demee nekk dëgg nekk li nga xam ne moom moo tàddeel Sénégal depuis 1960 ba tey dañuy dellu siwaat ci benn historique bu gàtt daal di ñëw ci philosophie bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko am ci wàllum politique au Sénégal ak ñi nga xam ne noonu lay tegee les projet de développement li nga xam ne moo xewoon ci atum 1960 ñëpp xam nañ ko mooy que Sénégal daa jël indépendance am waaye dafa continuer di nouer ay relations avec waa France loolee waral Senghor nekkoon fi Mamadou jaa nekkoon fi waaye ñëpp gis nañ li nga xam ne moo xew ci diggante Senghor ak Mamadou Dia dara waralu ko lu dul seytaane gi nga xam ne France mi ngi ko doon dox ci diggante ñaari nit ñi ndax gisoon nañ ne Mamadou Dia un sénégalais pur sang di def yi fi sénégalais di wax wax yi sénégalais te di xool intérêt wu Sénégal saa su nekk di ko jëmale kanam teg fi ay projet yu am solo dindi fi lépp luy mbon jéem a xool naka lay recadrer le Sénégal de telle sorte que ñu nekk dans une voie boo xam ne voie de développement lañ koy tuddee. loolee dema dema dem ba Mamadou Dia commencé am doole ci réew mi sénégalais yi bëgg ko fonk ko respecté ko jox ko cër bu am solo boo xam ne mosuñ ko woon jox leader ci Sénégal léegi nag loolee jur benn jalousie si digganteem ak Léopold Sédar Senghor ba tax moom Senghor mu dema dema dem ba xam ne kat Mamadou Dia mii bu ma ko bàyyee il sera plus connu que moi dina yegg foo xam ne dootuma ko mën a téye te bu boobaa man Léopold Sédar Senghor kenn dootuma dégg fenn alors que man je veux être au devant de la scène loolee moo waral moom Léopold Sédar Senghor mu daal di indi jeexi jaaxa seen diggante ba daal di koy jiiñ li nga xam ne mooy tentative de coup d'état ba tax du Dia ñu daal di koy tëj dama leen di recommander ngeen seetaan documentaire bi nga xam ne moom Mamadou Dia wax na ci diggante relation yi nga xam ne amoon na ko ak Senghor ba ni mu koy tëjee gannaaw bi nga xam ne génn na am benn entretien boo xam ne mayoon na ko journaliste yi booy déglu Mamadou Dia boo deful attention yow di nga jooy ndax dafa am lu ko métti à la fin mu ne bal naa Léopold Sédar waaye tey ci je vois ce qui se passe dans ce Sénégal, si je vois là où Sénégal en est arrivé alors qu'on était bien parti, j'ai le kër meurtri. da ngay xam ne yow kat Sénégal départ ga mu amoon amoon na solo solo goo xam ne tey jii waruñu woon fekk fii ñuy regle ay mbirum ceeb ak dëwlin lu muy jara nu ñu koy wàññee wàññi dugg cher gi nu ñuy def ba lijjanti ko actuellement dañoo waroon nekk ci Sénégal boo xam ne day am sécurité alimentaire waaye lépp jalousie moom moo ko yàq fiiraange moom moo ko yàq. loole nga xam ne nag am na ci diggante Léopold Sédar Senghor ak kii di Mamadou Dia moom moo nekk di traduire waat actuellement ici au Sénégal dañuy bañ yàgg ci histoire Mamadou Dia ak kii di Senghor ba duñu gaaw a dugg ci li nga xam ne moom mooy waral waxtaan bi waxtaan bi li ko tënk du lenn lu dul France Macky Sall Ousmane Sonko Macky Sall mii nga xam ne moom mooy yore réew mi tey moom mooy incarné kii di Léopold Sédar Senghor Ousmane Sonko di incarné Mamadou Dia France moom moo fi nekk ba tey ba woon démb moom mooy bi tey te dafa gën a pire ndax intérêt yi dafa gën a yokk ba noppi itam li nga xam ne moom moo di richesse yi ñu gisoon Sénégal yu démb ak yu tey dafa ute ndax yu tey yee gën a garaaw gën a nekk lu géostratégique gën a nekk xam ne moom la ñëpp di wër loolee moo waral faw ñu def taxaw seetlu ci lu ni mel Ousmane Sonko saa su nekk mu yëkkati ci ay kàddoom ne kat Sénégal gii war nañ koo jéem a xool luñ koy tëggaatee. xool lu ñuy defaraatee suñu ay relation ak waa France ndax suñu lépp dañ leen koo jox te saa yi suñu leen ko joxee ñoom ñoo ñu ci ëppale di ci am intérêt yoo xam ne Sénégal mënu ko am. di ci am exploitation boo xam ne Sénégal njëriñam du ko ci gis te ba noppi itam ay doomam duñ ci gis seen bopp. loolee mooy li nga xam ne saa su nekk Ousmane Sonko daal di ciy wax waaye nag président Macky Sall la nga xam ne Senghor defoon na ko Mamadou Dia muy daal di koy éliminer jéem ko tëj moo nekk actuellement di ci reproduire loole mooy lan moom Ousmane ko ñu ngi nii indil ko ab complot comme ni mu koy waxee digganteem ak Adji Sarr ñu jiiñ ko lii di viol bëgg ko juger daal di koy tëj kaso waraloon sax ndaw ñi wàcc ci mois de mars fii ci Sénégal am ay heures yoo xam ne jotoon na fee am diggante bi population bi ak ñii di takk der yi ba amoon sax fukki nit ak ñeent ñu ci jot a ñàkk seen bakken loolee nag la ñuy bañ mu reproduire ci Sénégal te Ousmane Sonko kenn du accepté ñu koy traité di ko def na nga xam ne noonu lañ defoon Mamadou Dia Mamadou Dia a été un pertement pour le Sénégal nekk benn recul démocratique boo xam ne Senghor daal dina koy def nekk loo xam ne métti na Sénégalais yi bu baax a baax te personne ne souhaite que loolu reproduire moo tax nag il faudra que Ousmane Sonko ñu jàppale ko. il faudra que Ousmane Sonko ñu daal di koy taxaw ndax buñ ci deflu attention rek il sera comme Mamadou Dia ñu toogaat fii ak ay fan wala fii ak ay at naan o oh, bu ñu yëgoon daal di jàppale Ousmane Sonko mile ndax kat la nga xam ne amoon na ko comme vision fii ci Sénégal ndaxte moo nekkoon dëgg bëri na ñoo xam ne ñi ngi génn dal ci kaw usmaan Sonko am sax ay groupe yoo xam ne ay groupe de rappeurs la ñu ngi leen tàmbali di jël di leen génneeloo ay son ci Ousmane Sonko ñu ngi ciy dégg benn boo xam ne moom Ousmane Sonko ñu ngi ciy dàkkantalee yolom géño naan moom moo violé di jëf yoo xam ne ay manigance la pour mettre dans la tête de Sénégalais que ne Ousmane Sonko mii du ko baax du ko jub du koo xam ne am na des valeurs nekk na nitu mœurs yu baax loole lépp nekk tout simplement des manigances yu ñuy def pour Ousmane Sonko ñu daal di koy éliminer waaye nag faw ñu tëggaat Sénégal gii te Senghor ak Mamadou Dia la leen daloon dara waralu ko lu dul jalousie dara waralu ko woon lu dul soif de pouvoir dara waralu ko lu dul waa France gi nekkoon ci ginnaaw xam ne kat moom Mamadou Dia mii buñ ko bàyyee Sénégal mën naa rawe ji France kon nañ ko jéem a jaxase ak kii nga xam ne moo di Léopold Sédar Senghor jiñ ko li nga xam ne moo di tentative de coup d'état bu ko defee ñu daal di ko fay jëlee te moom Mamadou Dia amul lenn loo xam ne def na ko lu jëm ci loolu tout simplement liggéey la xamoon jaamu yàlla def de telle sorte que Sénégal mën a jëm kanam ba pare am fulla am fayda am diplomatie bu jaar yoon boo xam ne mi ngi ko doon wëyal loole moo nekk ci Ousmane Sonko koo xam ne dafa nekk ci impôt yu demee di liggéey ba dama fay génne def fa plus de quinze ans amul benn fifteen buñ ko mën a taqal na kii moom moo ko lekk ca foofee foo xam ne ay milliards yi milliards yi milliards a fay jaar foo xam ne ay suufi suufi suuf moom moo fay jaar loolee nekk loo xam ne exemple la doy ci li nga xam ne war nañ ko cee mën a tax ñu daal di koy topp jox ko bopp ba noppi itam di ko jàppale moom Ousmane Sonko waaye nag ñooñu Macky Sall lenn kese moom mooy seen yitte fexe ba Ousmane Sonko moom du dugg fenn fexe ba Ousmane Sonko du mës a bokk ci ñiy jiite réew mi ndax ñoom jàpp nañ ni bés bu Ousmane Sonko jëlee réew mi dañuy sonn dina leen poursuivre ak traque des biens mal acquis et autres waaye lu ci am mooy li gën a important mooy le projet de Ousmane Sonko qui est semblable au projet de Mamadou Dia loolee la sénégalais yi s fi ñu toll nii soxla koo xam ne dafay gëm Sénégal fonk Sénégal nekk un africain pur sang te ba noppi itam gëm ne Afrique daa war a am fu sori foo xam ne war na faa yegg te doomi Afrique rek ñoo ko fa mën a yeggale loole mooy li nga xam ne moo xew Mali actuellement ñëpp gis nañ Mali neex-neex gi nga xam ne moo am ci dëkk ba fi ñu toll nii ñu bëri yaakaaroon ne Mali du survivre ci embargo bi ñu ko defoon ñu bëri yaakaar ne Mali bu génnewee France dootul amati lu dundee tey gis nañ ko am na benn résilience boo xam ne am na ca biir dëkk ba Assimi Goïta wane dëgg ne nit da ngay nekk gor nit da ngay am fulla da am fayda da ngay gëm sa bopp da ngay nekk ci li nga war a nekk yàlla dina la ci fekk si. loole moo am Mali te mën na am Sénégal gii ndax Mali ñun am nañ pétrole am nañ gaz am nañ zircon am nañ or am nañ ay richesse yu dul jeex ba pare am plus de sept cent kilomètres de côte ñu mën a napp si suñu géej gi am itam des bras de mer am des fleuves Sénégal Gambie. Casamance yooyu yëpp nekk loo xam ni war nañ ko mën a exploiter de telle sorte que ñun suñu ab dund dina neex am sax li nga xam ne mooy ay site touristique yoo xam ne suñu ay réew yi ñu gën a jege ak yi ñu sori sax nekk ca bitim réew mën nañ ñëw visiter ñu gis nañ fi l'île de gore gis nañu fi fee nga xam ne moo di île du Saloum nga xam ne benn mbir mu doy waar bu rafet rafet moom moo fa nekk ak yeneen ak yeneen ak i site comme Saly Portudal et autres yoo xam ne ñun mën nañoo def li nga xam ne moo jëm ci wàllum tourisme kon nag nañu valoriser suñu am réew nañu valoriser suñu bopp àdduna ñëpp xam ñun ñooy kan ak tamit lan la ñuy jar loolee moo ëpp solo saa su nekk ñu topp ci ginnaaw ay francais di yaakaar nañ ñoom seen njàppale moom mooy tax ñun ñu mën a jëm kanam loolee képp ku ko gëmloo ab sénégalais rek waxoo ko dëgg te waxoo ko li nga xam ne itam moom mooy yoon loolee nag mooy li nga xam ne mooy jàngat bi ñu leen fas yéene woon defal ndax ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko dafa am benn mbir moo xam ne buñ ko ci dimbaliwul rek guuta dina dal Sénégal te loolee du lenn lu dul jaay doole bi nga xam ne moom lañ ko bëgg jaay doole fi ñu toll nii bëgg koo éliminer tout simplement parce qu'il est opposant politique parce qu'il a une base politique boo xam ne bés bu ko utiliser rek président Macky Sall dina wàcc nguur gi te mën na koo gagné sax au premier tour loole la gars yi xam moo waral Ousmane sunkoo mayuñu ko dara. waaye nag ñun sénégalais yi ñoo war a may dara Ousmane Sonko ndax buñ ko jàppalewul prêter ko main forte li daloon Senghor dina dal Macky Sall daal di am jalousie ci moom def ko ni mu defoon Mamadou Dia te bu boobaa sénégal yi képp ñoom ñoo ciy perte ndax Ousmane Sonko projet de société yi mu yor nekk na loo xam ne mën naa développer Sénégal te bu ñu ko jàppalee amaana mën nañ am succès ci lépp loo xam ne ñu ngi koy yóotu kon nañ ko jàppale te bañ histoire répété wu ndax bu répété woo rek ñun ñëpp nous serons responsables te Sénégal gii moom dong moom moo ciy perte. mbokki internautes yi safoo seetaan AGT News lii moo nekkoon suñu jàngat na leen ci suñu chaîne saa su nee ngeen di am ay xibaar ak i jàngat yu wér te